waaw woote naa bi 10 heures jotee maa ngi woote bureau numéro 53 fii nga xamante ni mooy Darou Manane arrondissement bu ngoonee maa ngi jox rendez-vous man sama centre de vote ak sama bureau de vote dama koy gagné parce que loolu moom euh, mooy la may gën a gaaral mm-hmm. askan wi mm-hmm. pour que nit ñi nga xamante mooy kenn ku nekk nekk responsable wala nga nekk tête liste fa nga wootee ngeen tamit journaliste maa ngi la ñaan ngeen gëstu ko léegi reroulement bi mooy bi ñu xëyee daal gis nañ ni mm-hmm. am na ay manquement ak ay yeex yoo xam gis nañ si am na ay bureau de vote yoo xamante ni yeex nañoo tàmbali parce que ñu ngi tàmbali ay 9 am na si bureau de boo xamante ni dafa manqué li nga xam mooy kubéeru asaluwaar bi ñu war a wotee après man maa interpellé sax préfet mu ne woon a amee peut-être mujj nañ ko ngi def tour xool gis nañ aussi population bi war a génn massivement am na lu jot a jotagul comme wax ni dafa xaw a teel si nit ñi maa ngi wax ñoom ñëpp ñu génn massivement ñëw wote si parce que wote bi dafay déterminer seen avenir u parce que assemblée nationale mooy doxal réew mi ëllëg nit bu fekkente ne da am loo bëgg bu waxtu tànn jotee da ngay jël nga jóg tànn ba lu mu la jaral nga xam lii la jaral pour ëllëg nga xam fi nga tes tànk kon maa ngi woo population bu Touba ak Mbacké yëpp ñu ñëw massivement woote si tranquillement ba pare nag ñu def sécurisation seen wot ndax ku ne xam na ni mën nga joxe sa baat waaye nga fexe ba sa baat boobu ñu sàmmal la ko ba fa nga ko dugal muy foo xamante ne mooy fa nga ko fa nga fa nga ko waroon dugal nga dugal ko fa mais nga sàmm ko ba kenn du ko déplacé ñaareel bi mooy Euh, di alerte ministre de parce que ñun dégg na information yoo xamante di bërki démb am na ñaari bii si soixante onze personnes yoo ay soixante onze places yoo xamante ni sëf nañu ay nar wi dugg ak moom si biir dëkk bi bëgg bu ngoon jotee ñu sol ay yére pour ñëw maanaam provoquer ñi nga xam ñooy suñu mandataires yi xeex ak ñoom pour ñu jéem annuler ay bureau wala ay centre loolu tamit naa ngi si bi di wax ni bu ñu wuyu provocation mais nag nañu sécuriser seen wat bu ngoon jotee rawat na heure u une heure deux heures nga xam naajoo day tàng senes bépp nañu ñëw pour sécuriser seen wat toog si si ci ci ci ci fi ñu war a toog ba nga xam seen wat kenn du ko sàcc aussi kenn du ko yàq di ñaana seriñ mun mu yàgg fi te wér dëkk bi jàmm lañu fi bëgg jàmm la ñuy wootee man mii di wax yow jàmm laay wootee ndax jàpp naa ni Touba. kenn du ko xëccoo ak ñun loolu moo tax bëgguma dem fii moo fi ëpp li mu xaw a ni xaw leen tiital dara waaw xam nga ñun démb sax euh, am na information si météo ni dana taw tey mais santagul nañ yàlla ba ak seegul euh, mais loolu lépp rek sóoraal nañ ko ndax 2017 ñu ñi bi ñuy falu ensemble national wat nañ ba minuit